man Papis man yow kese laa doon wër xam nga football bi sëriñ seen ciy wax lu ne waaye man nee naa kenn laay déglu waxam am na sëriñ bu fi nañ ko jox jet privé borom six cent mille jinne yi Papis équipe bi fu mu toll mbiri équipe bi noo ko gisee samedi dañu war a dañu war a fool mardi mardi ak Équateur man ne premier premier match ah yàlla ma tiim de sama déw yàlla ma yàlla lakk ah dama ne Sénégal gisul dara dañ ma ni maa leen ne Sénégal gisul dara. Sénégal gisul dara mooy lan Papis. premier match bi. waaw du gañe boo gisul tous waaw. waaw dama. wala maa ngi soog a ñëw. ndeysaan bu si daa ngi noonu. Ah. ko bu si daa le grand champion borom la 25. borom la du yomb. loolu. Papis. Papis. Équateur la Sénégal wala am marge. deuxième match. waaw sama yow di mar yow bëggoo Sénégal nanga ma ko du bëggu Sénégal de damay gis lu may gis di ko wax. deuxième match ba may génn kër gi. muy dem ku tudd Ndeye Ndiaye xaritam fu lay ko seetaanee mm. maa ngi dem prix Fadiouth foofu may fekk foofu noonu may def fu séeréer mm. ma ne ko may naa la trois may ko ko bi sëñ Modou Kora ma yaakaar yàlla naa suuf sama nekk sama baay bi yaakaar sama fa mu yàlla maa ko wax loolu aw ma nag ay caméra yi may surveillance ah. waaye sama waa koñ si man xam naa la voilà bu baax léegi suñu match bi bii di ñëw nag moom ah. bu dee gisagum naa ko ba bàyyi engrais gisagoo ko gisaguma ko xoolaguma ko sax waa Sénégal xeex bee bëri. Ah. affaire la. xeex bee bëri ci biir équipe dem na ba ci nguur gi. woo ma lu ma lu ma dégg de li ma gisal sama bopp laa la wax. ba ci nguur gi am na ñuy xeex. ak sëñ Modou Kourance sama loxo dugg na ci. ku ñuy xeex ministre bi. noonu affaire la loolu mënu ma ci wax lu bëri. président bi la ñuy xeex wala. président bokk na ci. waaw ministre bi sport ministre des sports tamit. waaw. dafa jaxasoo de te man moom général maa ko wax. dafa jaxasoo waaw d'accord te lu ma dégg sama bopp la. kon match mardi bi day métti daal. te ay tour ñëw na ba sama kër. ay tour ci ñuy xeex ministre ci nguur gi. maa ko wax. ñuy xeex équipe ci nguur gi daal. waaw xeex. tour yaa ngi nii sama man boo ñëwee ma jox la CD ak sëñ Modou Kora. léegi Papis naka la ñuy def ba gagné. waaw ñu bokkoo dem bay na Papis Général am na cinq kii am na dix kii am na vingt. ndax xam nga nañ booloo ku nekk def sa xam-xam ñu jàpp ñu tam bu ñu booloowee mu jàpp équipe bi tam jàpp nga ni bu ñu boolee xam-xam yi mën na dem senegal waaw ak lu bëri ay kàngam waaw kii jàpp kee jàpp kee jàpp kee jàpp tubaab dañoo war a të tubaab tubaab da am gaala tubaab da am ay ndoxo gaala ñëpp lay jàpp mais gars yi dañ ñëwoon tubaab dafa xaw a naqaree liggéey affaire yu jinne kese la ah ah. tubaab jinne la la réer ay béy dañuy toog ñu rey leen ay béy. tubaab ak naar ba leen bëggee jàpp bu dëggee reyal béy dañ bàyyi caaxaan yi béy saytaane la jine la ñoo mën a jox lañ dëgg ñoom bi baax dama ne dañ jéere glace. waaw léegi bii di ñëw na glace yi génn maa naa leen trois léegi bii di ñëw nag bii di ñëw nag moom wax dëgg soxla gis naa ko wax dëgg mais boobu est-ce que bu ñu yóbbu woon Qatar ñu boole la ci xeex bi mën na mën na sori mbaaxam xam nga ne Sénégal ñoom El Hadj waa comme Mbaye Niang yi doon ministre des sports. waaw léegi naa seen xaalis. déedéet kay. ak sëñ Modou Kora Mbaye daaru ak Serafal. est-ce que. na na ponk li jàpp na bi uh-huh. nga wax uh-huh. sama doomu ndey ngi noonu. sama xarit ak noonu. ku mu naan Karamba ba su ma ñëw këram tey defal ma teraanga. Uh-huh. sama xarit bu ñuul bi bu ñuul bi. ka di ko soo. si kër Karamba. maa ko ko may tabaski xaru tabaski a xanaa maa ma ko jox ak leneen ak leneen sama la damay ñëw ba këram ku ma bëgg la. ak loolu si waaw mais ñuy diingat Karamba naan xamul dara nga yow balaa nga xam nit ki demal këram. wala ngeen dund nga soog nga mën a dara ñu koy wax est dama bëgg bu xaalis moo ngi liggéey de. fële yaagul de. ah ma ma gis ne fa Ndoumbé Diaw. moom it ma jógee Sane. waaw ñi ma toogal. waaw lenn ki sama yàkkal. sama guddi neex na de. waaw waaye combat Balla Gaye ak Boy Niang. waaw nii nii nii nii. waaw ba ci bu bi rek gént bu yàqu. ma ne dafa yàqu waaye naa ko jàpp normal. waaw Balla Gaye mu def ndànk rek. Balla Gaye laa ñaan mu def ndànk. mu def ndànk waaw. lu tax mu mu ne. loolu la Boy Niang mu ne ci làmb waaw duñu xam-xam nag ñuy wax. waaw Boy Niang daa bëgg koo attaqué. te Balla daa bëgg koo attaqué. waaye Balla Gaye nag boo nekkul jàmbaari làmb. waa xam ne prix bu dalee sa kaw boo nekk boo amul fit doo taxaw. moo amul foofu combat bi fu mu toll. non mystique. koo xaalis moo ëpp mystique. ku la bu xaalis. Ah. moo ëpp mystique. waaye boo yoree un million ah ma yor quatre millions ñu dem sa un million bu jeexee sa apogée des na trois loolu seeti moom lay door force. bu la Balla Gaye woowee wala Boy Niang woowee pour alal. Ah. ma bàyyi lépp. yàlla may ma may dund loolu. hôtel yaa ngi fi sali fi. yàlla ma jox lii rek. sëñ Modou Kora lii nan la la ah. am na affaire yu ma am. fu ma dugg ci làmb ci aaduna ëpp na ci aaduna. di fanaan ak ay sëriñ ay eh, musiba di fay sama xaalis. ak ah. jinne waaw ñeent. jinne nu mel. jinne moo dàq jigéen mu nekk ci àdduna jinne la dàq. dégguma. jigéen mu nekk ci àdduna. jinne ah. moo la dàq. nan la ñu mel nan la ñu mel. bu rafet nga bugg a dee. rafet jàngale bu ci toll nii. Ah. weex tàll. dañu yor jëmm ni jinne boobu nga xool dëgg-dëgg lan la. xool ci tànk yi. waaye lu sol day muuru nag. lu sol day muuru. ndax tànk yi amul tànk nit. ay sabo la yor ay sabo sabon ay sabon ku bu sabon fas hmm. waaw loolu la jëflante ginne ah moom lañ yor nii di hmm. kus, kii yor ay ginne mun naa wax yow sampé daaw billahi wala talaahi bu dee kuus bu dee kuus kuus kondorom lii fu mu féete jëlal lii fu mu bu dee kuus nag fii lay féete ci ginnaaw fii lii nii bu dee kuus fii lay féete ci ginnaaw Gris Bordeaux Ama Baldé gisoo ci dara léegi ak sëñ Maodo Kola bu ma yaakaar yàlla ma lay jëgal la yàlla ñu may. jërëjëf waay yàlla liggéey lépp nag lépp jàpp. waaw lu jàpp du bëri de Ama sama rakk la sama doom depuis Malick Niang ba léegi ma rakk Ama la. Jacob lii mooy cinquième combat maa moom cinquième victoire. waaw cinquième victoire. waaw <laughs> non am na lii mooy sixième dañ ko sax moom cinq jot na waaye nag dañoo tardé ndax démb ci guddi nañ soog a kër. si rek dina am ndam ah dina am ndam ah loolu laa bëgg nii de waaye wax la yàlla dama doon jëflante ak moom bee passé yee passé lii nag jëflante wuñu mais Ama Baldé loo gis ci moom Ama Baldé kenn du ko téye day dem affaire la day ci dara ragal bu ci dara nañ ko dundal Ama Baldé day daan Gris Bordeaux yàlla yàlla yàlla ñu fi yàlla bàyyi ñu ñëpp ak jàmm ak salaam ah. ragaluma dara yi àdduna Gris Bordeaux macha allah bu ah. yaru ku baax Maodo rakam xam na bu baax xam naa du ma wax nag maa ba Sénégal su ma woowee ci mbir nga bàyyi àdduna. Eh, taw ak géew su ma woowee ci mbir yu mag yi fekk. soo demee ba ci eh, nga bàyyi àdduna de. Eh, tokor tokor la séeréer laa def de de. buguma jaamu de. Souleymane Ndéné Ndiaye. kóor day dëgër. yàlla yi maye. nañ yi. Souleymane Ndéné. min ma mënu ko waa nga Cangaay. Ndakaaru bi. mbër ma saata. ma wàccee la ndànk. tekki sa ngëm. kaw ak géew nga bëri ma saaka ma wàccee la. laaj ko ñu ko defoon. nekk na avance eh, na. am na mbir yu def trois ans. saaga. loolu duñ ko bëree mukk si àdduna. lan moo la saaga woon. doomu Jalaaw. avance su jàmbur la ne dootu ko bëree mukk. moo ngi trois